bàyyi ko bàyyi ko bàyyi ko bàyyi ko day dem lamb ñi bu yàqoo waa kër Gamou Gueye ñoo koy yàq ak waa kër Sokh loolu laay wax lamb ñi mbër yu mag yi ñoo koy yàq supporteru Gamou Gueye ak supporteru Sokh li dafa ñaaw sax seen naw la yëpp def signature ba pare ngeen toog fii di def si irresponsable yi Gamou Gueye dama nga toog sa chaise Gamou dama toog sa chaise mbëri dal nañ seen chaise yéen tamit c'est bon personne merci dem leen xoolal demal taxaw taxawal ne rek yow taxawal ne bul jaaxle bul sori foofu baax na. waaw salaamaaleykum ah avant tout dugal hymne national du murit yi rek hymne national murit na ko ñëpp teew la Baye Fall hymne national murit ah onze bila bismillah ina wali yàlla onze bila bismillah ina wali yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba Bamba Khadim Rasoul gars ku ne xam na ni Sokh ak Gamou Gueye ñaari mbër yu am respect lañ ba combat bi taxawee ba léegi Gamou Gueye wanewul luy coowloo kenn Sokh wanewul luy coowloo kenn ñu ngi daje fu nekk te dañuy joxante cër comprendre nga barki Serigne Saliou Mbacke ku ci xeex yaa loo sa bopp mais Gamou Gueye xeexloowu la Sokh xeexloowu la ndax mu ngi nii taxaw du ma saaga duma ma ko saaga te li ñu war a waxante dinañ ko waxante lii fair play la rek bu leen tax ñu teg sama der wala deru Gamou Gueye lu ñaaw te ndub meluñu noonu ma leen siyaar yéen ñëpp yéen ñu ànd ak Gamou Gueye yëpp ma leen siyaar baax bu signature bi jeexee ñu dox ndànk ànd dem ñibbi le 6 ñu jëflante man ak Gamou Gueye comprendre nga maa ngi sant ñëpp di nuyu ñu fi teew ñëpp di nuyu suñu papa yi fi toog yëpp di nuyu suma adversaire Gamou Gueye di nuyu waa Pikine di nuyu suma mbokk joolaa yi ñoom ni saafen di muyul kala Kabrousse kala ñaal kala Guinée Bissau kala këru xëy ñoom ni saafen di muyul fe di nuyu suma mbokk séeréer yi o séeréer ma xee sum naanuma paax layaama nuun joko njal gaama nuun ndamtaama combat fekke mi fa Gamou Gueye maa ngi nuyu sama mbokk di nuyu waa àdduna di nuyu waa Sénégal wasalaam ah salaamaaleykum gars maa leen di nuyu bu baax di leen siyaar bu baax di wax Sokh li mu wax noonu kontaan naa li mu wax lu jaadu la quoi maa Sokh xeexloo ñu kenn maa moom ñoo war a bëre ñun ñaar ñoo war a ñu kenn ñun ñaar ñëpp yar lañ ñu xamee di ñaan yàlla ma yàlla may ndam si kawam si barka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal Papa Yada sama nit la woon sama rakk la woon di nga ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla xaare àjjana ak ñi mu fekk foofu ñëpp. amiin amiin amiin xamante ne nii samay combat da si daan sonna dina ma dañ koy sant waaw di ñaanal ñëpp ñu mbëri yi génn àdduna yëpp maa leen di ñaanal yàlla yal na leen yàlla xaare àjjana ah ñi ñu fa fekk ñëpp. yéen ñaar daaw ngeen waroon bëree ñu ñëw bañ ne suba la combat bi dogal bi wàcc boobu ak léegi wàccaay gi metti na de sox. waaw moom moo tax ñii war ñoo yërëm quoi loolu rek dafa war a tax ngeen yërëm ñu mën a gàmmu ge ndax ñaari xale yu toog ñaari at yaakaar lamb bu bëriwuñ dafa metti comprendre nga di ñaan rek yàlla na jàmm xew ba si kàttanu yàlla mu daan Gamou Gueye di ñaanal Papa Yade di ko ko jaale moom Gamou Gueye di jaale Zilbalde Junior di ko jaale waa Pikine yëpp di ñaanal suma grand frère Ousmane Tine caabi da ko féete ginnaaw suñu borom delloo si jéen suñu borom delloo si waat ko di ko ñaanal képp ku caabi féete ginnaaw ñoom Cheikh Xuma ñoom Petit comprendre nga maa ngi ñaanal ñëpp jàmm ci daraje Seydina Muhammad waaw ay sant yàlla jaamaa pexeem yàlla dogalam waaw promoteur tamit moom borom baax la coono bi lu ñëpp a bokk ak mbër yu ndaw yi ñu ay mbër yu ndaw lan sax mais lu ñëpp a bokk ñun mbër yi ñu ñu waroon a bëre la quinze xam nga mais jaamaa pexe yàlla dogalam di ko sant yàlla bu baax waaw. yéen ñëpp seetaan nañ seen combat yu mujj waaye bu ñu leen xoolaatee tolluwaay changement am na soq foo waajalee combat bi ak préparation bi naka la demee. waaw man ku ne xam na ni sama états-unis laa jógee Gambie. di leen ñaanal jàmm ak tawféex di ñaanal suma papa Jine Mori père Boy Mela Kunta Junior suma xarit ak Garga Kalso suma doomu nday nga xam ne moo benn yoon comprendre nga di ñaanal suma coach Ala di ñaanal ñoom Malick ñoom Julde ñëpp comprendre nga combat bi ku ne xam ne ni ñaari at lañ ko préparé Gamou Gueye su parewul daa yëpp waa Tëngéej man suma parewul damaa yëpp waa Pikine te benn Modou ñun suñu combat bi mu yàqoo amaat ni nañ ñoo bàyyi ñu bëre parce que tolluwaayu Gamou Gueye ak Sokh ñaari xale yoo loo xam duñ négocier bis kon ñun duñu rusloo amateur yi bis boobu buñ ñëwee Gamou Gueye ku ne xam na ni Gamou Gueye du dellu ginnaaw mbër mu ñeme la day attaqué day xeex waaye Sokh ku ne xam na ni Pikine la dëkk te xale la ma am fu ma war a jëm nag soxla bis bii ci lu wér man nii laa mel de man nii laa am nii laa am sa tool waaw nii laa mel maa ngi dëngéej Rio waaw ñun Rio lañ am mooy suñu États-Unis instant bii nii bëgg nañ dem nag mais mënaguñoo dem instant bi ñu ngi Rio waaw di waajal combat bu baax waaw ñu ngi si kawam daal di ñaan yàlla yàlla may ndam. léegi ñu dugg ci biir combat bi arbitre bi bu sifflé nan lay demee da nga daan ñëw. dañuy daje ndax xam naa ne waa ji day ñëw. jàmbaar la. lu mu laaj rek. waaw incha allah moom la ñuy def. non non lu mu laaj gaynde lu mu laaj ay naxante la. arbitre musta sifflé te doxoo sa paa ñëw arbitre musta sifflé te soq deful nii. nañ daje rek jëflante mu jeex ñu ñibbi mbër làmb la làmb <laughs> la daal lu mu laaj rek insha allahu rabbi loolu laa lay wax non eh, yaram ñii ngay jéem a lëre mais man soq xam naa ni gàmmu gay bu arbitre sifflé day teg paa ñëw mais yow xamal ne bu arbitre sifflé soq day teg paa ñëw jëflante aman <laughs> dinaa xaar amul problème ñu ñu tuddee combat bi El Hadj seen frère seen moroom liggéeyam moo ko liggéey liggéeyam moo ko waral soox looy wax ci El ak xale yi mel ni moom ñu ne ci réew waaw boole si Assane Bongo parce que ñun ñëpp ay jeunes lañ gis na ñu taxaw pa taxaw fi El Hadj Kayda jàpp si mbëri ndaw yeex ñun ñëpp jàppale ñu nga loo ñu jox ñu jënd ay bee waaw logique waaw wax ak Assane Bongo mi moom comme jënd na li des di gisee bi yëpp kon ñun jarul ñu jubal ci gisee boo ñuy jaay nga jaay ñu boo ñuy may nga may ko waaw. waaw war a jàppa ñun ñëpp nga may ñu am loo ñu may ñu jënd ay bee bu dee ku nekk da ngay may ñetti bloc sax nga may ko wala ñaar ñun mbër yëpp. Modou bés bi sa bés la. Modou waaw El Hadj Keita ku ne xam ne ni ndaanaan la moo mujjee ñëw ci génération ñu naan ko la Neymar kon loolu du ay caaxaan fii waxal nit lu mu deful ci naafeq la bokk. mais ñun li ñuy wax nii ku ne xam na ne El Hadj Keita dafa mën a way dëgg yàlla na ko yàlla lafal cat li gàmmu ngay wax dëgg la combat bi ñaari lañ ko préparé te gisuñu dara te terewul ñu ngi sàmm promoteur bi ñun xam nañ ne demee ci côté am woowu moo ko sanjaxal ko ni ko lii wala lële ba mu jàppee le six dama ni ko jërëjëf ak lu mën a xew buñ ma joxul cent franc dinaa bëri te ba tey ba sànq joxuñu ma cent franc mais dinaa bëri ndax ku wéet xam sa bopp te ñun xam nañ ne ndaw la da cee nekk nii rek di jaayante ba tey amagu ci lu extraordinaire kon dañ koy ñaanal yàlla suñu borom kàttanal ko ci daraja yonent bi mais pour l'instant ku nekk dindal naa la ñaari bolok merci waay merci damay sant samay entraîneur ku si ma nii Papa Yada non rusantewul ñoom ñoom nii lañ mel toog nii laa mel kon maa ngi Papa Yada Papa Yada maa ngi koy gërëm bu baax di sant Papa Forman di si gërëm laay boxeur ak Bolo comprendre nga ak Idi ak Babou Kallay Papa Lamine maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla saafara bu baax comprendre nga di sant ñëpp di oo waa Baol ñu ñëw jàpp si combat bi di oo waa Ndiaye production bi waaw ñu jàpp si combat bi di oo waa Tëngéej fukki peñcee ak ñaari ñu oo ñoom ñëpp ñu ñëw jàpp si combat bi di oowaat Réfane ñu jàpp si combat bi waaw Aline Mar Aline Mar ma di ko oo maître maître Bamar Aline Mar ñu ñëw jàpp si combat bi maître Bamar ñoom ñëpp ñu ñëw jàpp si combat Libaas maa ngi koy bu baax Idda ñoom ñëpp waaw. Jibi Ama. ah éleveur yi. waaw Jibi Ama sama frère dama koy ñaanal wér gu yaram ak tawféex. Modou Jibi Ama ba ba ba une heure du matin daf may message ma ñaax ci combat te dafa tëdd yàlla na ko yàlla yëg fëgg boppam amiin amiin ci ay yitteem comprendre nga beneen bi di ñaanal waa Pikine jël championnat bi di ko ñaanal président non championnat bi waa ta nge likoy jël de benn point ngeen mais garaawul di ñaanal waa Pikine yàlla may leen jël championnat bi di ko ñaanal président bi di ko ñaanal borom Batora di ko ñaanal yokkute ak wér gu yaram ak tawféex comprendre nga di ñaanal suma entraîneur moo maa ngi koy ñaanal bu baax di ñaanal waa xam sa cosaan mbër yi fa am combat yëpp suñu borom defal leen ndam di ñaanal président bi Malick Gningue comprendre nga di ñaanal suma grand suma xarit suma frère Malick di combat bi taxawee ba léegi nelawul gëmmul centimètre moog Vito ak ñoom Moussa Ndiaye suma mafia bi yëpp ñoom moo Talla S Ibrahima Diallo borom dëkk bi comprendre maa ngi ñaanal ñëpp jàmm di woo Mortala di woo Abdou Karim Sall di woo Amadou Sall comprendre daaru Mamor drapeau Ousou Boy mbokk kontaanee nañ leen di leen jaajëfal le 13 juin Djibson mooy ñëw ci arène nationale Bulldozer gi bi na ñëpp jërë ngeen jëf di sant journaliste yi di sant ñëpp jaajëf Baba Diaw mi leen jox rendez-vous mardi Bantamba